ci Leewtoo TV ñu ngeen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko ak koor gi tey nag ñu ngi jëjëwaay marché bu bees c'est champion boo xam ne yaakaar naa xam nañ ko ci réew mi amul benn problème mbaa am nga jàmm marle waaw baax baax ñi yëngu yi ko ñi ci kawam di waaj di am ci suñu borom Talla Ndiaye mhm. bég ci yow waa maa gën a bég si yéen ana ndogu li nii seen Baay Faal gi aca jam jambana fa waa aca kaay ah, ah. tàndarma ji ñu bismillah boo gaay kaay leen ñu ndog ci tàndarma ji dog jot na fii ci Géejawaay marché bu bees ak li ko tàndarma kay moom neex na trop wax dëgg xamoo fu ñu koy bayee non xamoo fu ñu koy bayee nag moom hmm. waaw dégg naa garabu àjjana la de waaw garab àjjana la moom. kon de yàlla na nu yàlla mooy nu dund ba doyal te wër te am lépp ëllëg bu nu fi jógee comme dinañ fi jógee nu dem àjjana rek te yàlla tax. amiin yaa rabbal aalamiin amiin waaw waaw ñëpp àjjana lañ bëgg. incha allah dañuy yàlla na fa yàlla yóbbu ñëpp. amiin ma yàgg maar yàggum Cheikh Béthio Thioune kenn du yàgg waaw bismillah taala kaay ñu naan café mbokki Leewtoo TV nag gis ngeen ndogu nañ ba pare dem nañ ci mbanaay café yi ndogu macha allah am na solo ah di nuyuwaat ñëpp rek comme niñ ko xamee toog ak nag le grand champion fii ci Guédiawaye marché bu bees marle mu jëm ci combat waaye balaa ñuy dem si combat beeg yu mel ni ki noonu sax ci weeru koor lañ ne mbër euh, maa lay baalu àq bu baax a baax. waaw ñii ngi lay baalu àq di leen baalu àq xam nga leen wax yàlla na yàlla def kooru jàmm waaw ba ñëpp daal kenn ku si nekk li nga woor yàlla suñu borom bu nangul la ko ñi nga xamante nii dañoo am ndog-ndog ba mënuñoo woor yàlla teggil leen loolu. ba ñu mën a woor ci kàttanu suñu borom di ñaan jàmm daal. yaa ngi woor. waaw maa ngi wor ñaata fan la ñu am tey. tey est-ce que du 16 jours parce que démb sax laa jàppoon 14 jours ñu ne 15 la ko waaw wax dëgg yàlla man moom du ma du ma bàyyi xel bi si quoi. Mhm. Marley bu ñu ko waxee ak weeru koor euh, ci bi ngay nekk xale noo da comme wor yi ñu daan wax ay woru gàlle yooyu daan nga ko def. waaw jaar naa si moom wooru gàlle moom jaar naa si li si jaarul tamit yaakaar naa bëriwul waaw jaar naa si mais gars yi sa bos lañ a xam noo man moom bu ma musaan a war wóoru moom buñ musaan a jógee fi géej la ñuy dem rek buñ demee def suñuy yu baax dund xam nga mais loolu yëf xel la woon mais comme xam nga fi mu toll nii moom ay mag lan te dañoo war a wane bon exemple moo tax xam nga faaw ñu wóor daal wor ndax suñu borom loolu la digle mhm. jàng nga alxuraan waa jàng naa alxuraan waaw loo mën a wax ci li nga jàng ci alxuraan ci lu gàtt loo ma ci mën a wax waaw li ma jàng si alxuraan maanaam maay julli su may julli maay tari xam nga maay li nga xamante ne daal suñu borom digle na ko si julli ni ngi koy def daal. tey su ma la noon nga taril ma ginnaaw baatu onsu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mhm. alam nasara laka sadraka loo may wax. waaw xam nga instant moom xam nga li moom dañ koy tari mais lu ñu mënul moom duñ ko tari. loo man kon li nga mën laa bëgg a xam. waa aca su ne billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ama yow alhamdulilahi rabbil alamina arrahmani rahimi maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin waaye na ñëpp na amin waaw de xul yaa ayyuhal kaafiruuna la a'budu ma ta'buduuna wala antum a'abiduuna ma a'budu wala ana a'abidun ma a'badtum wala antum a'abiduuna ma a'budu lakum diinukum waliya diin lu doy waar la wax nii saar woowu dégg naa naa fekk du ko tari de <laughs> ah waaw dañuy ah dama koo dégg ci borom xam-xam yi waaw dañuy jéem rek. solo. waaw dañuy jéem rek. ban daara nga jàngee lii. non arab laa jàngee fii rek si Oustaz Gueye. Oustaz Gueye. Hmm. mbaa nekkoon xale yooyu tiit tribal ci daara ji dóoree ka daw ak indi ay jafe-jafe. saaba mel ni waaw. lu waraloon saaba ji loolaan def xanaa da nga doon defi tuuxi doone wala. waaw jàng normal sax xam nga <laughs> demee fa woon waaw parce que rek boo nekkee ndaw tamit dëgër bopp yu bari pour nga koy. gëstu rek xaw a jafe quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi weeru koor yi bu ñu ci ñëwee jullit yi di woor euh, maanaam jullit bi tey boo amoon loo leen di wax ci weeru koor yi ñu war ko yokk wala ñu war ko continuer di ko def bu après koor gi tamit lu muy doon. waaw li ñuy war a def mooy di sant rek ndax weer bi comme weer la boo xamante ne nii maanaam boo si defee benn ñu fay la ko lu bari mm-hmm. kon faaw ñu koy sellal di si def loo xamante ni suñu boroom di jégal baaxaare bu baax a baax. waaw di wax jullit yëpp képp ko si mënit nga koy def parce que amuñu lu dul luñ suñu borom digal ñu def ko waaw ki mën nag moo war def ku mënul moo war def ak maanaam xéewal yi nga xamante ni nit dañ koy yittewoo xamal nit ñi di xéewlu doomu aadama yi ñëpp bokkuñu yem waaw. parce que sànq fekk naa la ci mbana gi mu mel ni foofu mbana gi da fay faral di joxe ay ndog wala. waaw man foofu laay ndogoo sax. Mm. waaw man yàlla xam na ne weer du ma fii moom man foofu laay ndogoo. chaque weeru koor nag fa laay ndogoo. depuis da ngeen di togg café segg café jox gaay yi ñuy ndogu ak pain yooyu. waaw la ñuy def dañuy segg café xam nga di jox gaay yi jàpp bis boo xamante nii tamit dañuy def ay xéewal yu bari pour jox gaay yi xam ñuy dund. Mm-hmm. Marley lu ko booleeg làmb. waaw li ma booleeg làmb naa ne ndogalu suñu borom la rek ndax borom bi mooy xool fu ko mu xiir la fa tamit du woon lu ñu bëgg mm-hmm. mais suñu borom moo dogal loolu si ñun te mënuñu si dara waaw su mag nag moo doon bëre. muy réparé xam nga yàlla waaw mag la yàlla dogal ma leen di seetaan yi xam nga ñoom ak Pape Thiam ay Bébé Saloum xam nga ay Abdou Ngaka waaw xam nga ay Modou Xole numéro 2 fa nekkoon waaw yaa ngi dégg ma daan dem foofu jamono yu Igri Kayor xam Igri booy sëy nga fa woon. sëy nekkoon ma daan dem di seetaan yi xam nga après crise da lay dugg yaa ma gën a xam waaw suñu borom tamit dogal loolu loolu moom dugal ci làmb booy sëy ma koy nuyu depuis Espagne léegi nga dugg ci làmb bu ma ñëwoon mbapat ci lu gàtt jot nga ko def fii biir géejawaay ak wala ci àll beeg yooyu comme ni ko gars yi waxee waaw mbapat moom def naa ko biir géejawaay moom waaw yi ne géejawaay te ñu fi a dajal champion yi ma fi bëril bari na xam nga li ma wax nii mais comme ñun géejawaay lañ dëkk te am na loo xamante boo xasee ba wax rek wax bal la quoi yaa ngi dégg bu xasee ba génn moom dara mënatu koo téye. bu dee ci biti géejawaay nag comme Pikine géej parcelle Fass wala ñu mel noonu. waaw bu dee si biti. boo ñaa bëri naa moom mu daan ma. 72 heures mbéy kay falaa daaneel lagros tamit. yow mi daan nga lagros 72 heures mbéy. waaw 72 heures boobu laay qualifié quart final boo ñaaw di ma éliminé. quart final waaw. kon de booy ñaa lañu waxoon rek booy ñaaw daal dafa mel ni moom. waaw mais loolu loolu loolu dara sax xam nga bu dee géejawaay gi boo ñaaw Pape Pape Thiam ban. waaw Pape Thiam mooy bokkut ak Pape Thiam bu ndaw waaw bi nekk Ikri Kayor. waaw daan ko daan na ko buntu Ikri Kayor. lamb moom loolu dara mbapat waaw. nga nit moom des fois comme booy wax am na ñoo xam ne boog bu ñuy wax dañuy maanaam li ñu def rek la ñuy wax quoi mais li leen def moom dañ koy jëlale. te hmm. eh, xanaa da ngaa jàpp ne kon ku defee def nañ la. waaw mais noonu la xam nga àdduna moom lu waaye def rek defit la day fekk defoon nañ ko pare voilà. léegi su ma ñëwee léegi loolu am na ci mbapat leer na lutte avec frappe kañ ko njëkk a bëree. waaw lutte avec frappe maa ngi ko bëree fin 2010. koo njëkk a bëree. Modou Dione numéro 2. ku daanoon. maa ko daan lamban léegi. ñaata combat nga bëree arène. ñaata combat combat yi nag fi mu toll nii mi ngi bëgg a bari quoi. Hmm. mat na 20 wala 15 wala. waaw boo xool maa ngi si ay 19 daal. ñaata victoire nga am. na 4 défaites daal ak benn sans verdict. ñaata victoire. maa si quatorze victoire xaw ma quinze. ok daal à peu près vingt waaye. defet yi nga am bu la ci gën a naqari. defet yëpp moo naqari. bu la ci gën a marqué. moo yëpp kay defet yi moom bàyyi. Hmm. benn du neex. sa digganteeg kay Kairé. waaw làmb la rek moom it xam nga maa ngi koy fay di ko nuyu parce tamit keroog mi ngi jàkkaarloo di ma nuyu xam nga di ma siyaare bu baax maa ngi koy siyaare bu baax di ko nuyu. mais yi ñuy naan xanaa wala ana affaire yi ñuy naan doo ci génne ñu ah man kay yaa may jox xam nga gan du wi bëy nag te gan laa damay xaar bañ jox ma nag banaana yaay nii waaw man de est-ce que poire jële wala orange ji du gën ci man sax ah, poire ngi nii wala bisaab benn béyee ci réew mi waaw boo si boo si ma a xam xam nga bisaab bu xonq dama koo xam mën naa koo ji mën naa koo bay mën ngaa bay bisaab non mënumaa bay nag waaw foo dëkk ci réew mi bu noo bay bisaab laañaar laa dëkk waaye mënumaa bay laañaar ga ca kon mar la bool bool bawol bawol laa de maa ngi dëkk laa ñaar ñi ngeen. Mm-hmm. ñi ngeen mais damay ñëw sa ak Diène Kaïré combat bu la ko xañ. Ah, suñu borom rek. suñu borom kese tout court. waaw amul leneen sportivement amul luñ ci mën a jàngat. <laughs> ah xanaa yéen ngeen jàngat ko waaye man de loolu laay loolu laay jàpp moom. mais yow mi athlète bi compétir entraîner ñëw bëre ñàkk combat mais yow bu fekkee mënoo ci tirer ay leçons est-ce que yow war war nga nekk comme war nga nekk un un ëllëg bu fekkee défaite bi nga jël bi nga am amoo lan la su may tirer comme leçon. xam nga victoire sax boo ko amee da nga am loo xamante ni da nga am jàngat. yaa ngi dégg mhm. waxuma la ak défaite. victoire waaw no déggoo li ma la wax victoire sax laa. dama ne ndax jàngat nga ci defet bi dara. moom laa lay wax ni dama ne la victoire sax boo ko amee. Hmm. di nga ci am jàngat waxuma la ak defet. Hmm. defet kon boo ko amee faaw nga am ci jàngat. Hmm. ban jàngat nga ci yow. waaw jàngat yu ma ci am bari na xanaa kay li koy firndeel maanaam ne jàngat yu bari na mooy ñu ñëw ñëwee ak beneen feem rek. am na ñoo wax ne bés boobu da nga bëri poids ci sa yaram. waaw ñooñu loolu la ñu gis am na ñoo xam ne dañoo gis ne dama bëri pois am na ñoo xam ne dañoo gis ne entraîné wu ma. Mhm. parce que dañoo xamoon Marley boo xam ne dafa am vivacité di bëre di dëpp di dëppi bu jàppee def lii su sottiwul day def leneen mais ñu ñëw gis marle boo xam ne poids bi bëri na maanaam mu mel ni daal vivacité bi rapidité bi newu foon. waaw gars yi ñoom ñoo gisee foofu rek waaye man pour man bëri naa def lu mu mën. Mhm. xaj na tamit suñu borom moo ne woon jour woowu sama bis. waaw te mënu ma see am ndam quoi. léegi victoire bu la ci gën a neex. victoire yëpp ma neex. foo ji cité. yëpp ma neex victoire yi. tin euh, da nga koo daan mbaytin non tafatin numéro de tafatin numéro 2 waaw. boobu yaa ngi koy fàttaliku. maa ngi koy fàttaliku foo ko daane woon. <laughs> Demba Diop. <laughs> combat boobu ah man day bokk na si combat yu ma jàpp ci yow kii bëri ba nga bëri xam nga ko. waaw combat boobu yaakaar naa booy xool sax li ma gën a génnee si la bokk ndax combat la boo xamante nii xam moom favori bi lépp moom la woon. maanaam ñaari adversaire yi bokkuñu maanaam li tax bokkuñu mooy du ñu ay adversaire de ci taxawaay ci jëmm lépp ku ko gis-gis la day xaw a tiit. voilà mais nag amaana moom doole lu muy bari bari bari te amoo xam-xam pour nga utiliser ko day xaw a jafe. Hmm. kere la nga bëree dafa rëy de ci li nit wax. waaw parce boo xoolee man dama ñëw liir ko xam ne mënu ma koo jaar fenn furu ci flanc yi ndax bu ñu xawee jàppante. mun na yàgg mun na metti te bu méttee it si mën lay gën a métti quoi si loolu moo tax xam nga bi arbitre bi sifflé ma daw mel ni lu ko ragal daw cokaas ko mu ñëw ak dooleem ma daw jël ko lulaat ak moom quoi. dégg nga de bëre bu rëy la bëre bés boobu Demba Diop wax na dëgg Talla Ndiaye maa ne combat bokk na si combat yi ko taal digganteem ak Tapha Tine numéro 2 ca stade Demba Diop la woon. petit combat la bis boobu léegi nag bu ñu continuer ñëw turu marle bi parce que marle luy marle ak lu indi marle waaw marle luy marle mooy comme li ma la wax léegi mooy écrit kayoor woowu noonu dafa am koo xamante ni fa la nekkoon tudd marle yaa ngi dégg bi ma ñëwee di bëri si booy di bërintu si la ma woowee nag ne ma kaay mbër nga mën ko déedéet mu ma ñëwal ngay commencé entraîner inscrire ma 1500 xam nga ne jëlal marle numéro 2 bi mooy xam nga rek dem ak moom mooy loolu benn tur boobu rek laa mos am si làmb nag. mais xam nga ki tax ñu naan Marley ki sant Marley xam nga ko. waaw Bob Marley. Hmm. fu la ko waa même lébu yi ñu ngi may faral di tooñ ndax dafa am benn jën boo xam ne Marley la tudd. ci biir si biir géej. waaw boo jën bi moom ni mu toll moom macha allah. parce que nga koo gis. waaw wanoon ma ko parce ma demee yoof si appel bi benn gaañan boo xamante ne gin. maa ngi koy nuyu di ko féliciter moom it si combat bi mu jógee wan na ma ko nii affaire yooyu rek. mu doon loo xamante ni tamit lu ma neex la daal. am na solo léegi nag fa nga bëree petit ko say mbapat ak say combat yu ñëw nga ci ak combat bi nga ñàkk ak fi nga jëm lii coow li nag fi mu nekk nii mooy sa diggante waa mbër ana bisaab bi fii gis naa fi bisaab de. mbër dee ma jox nag yow it may naan da ciy baax di. moom. Hmm? Hmm. gis nga bisaab yi boo koy xooj di ko naan ak i kel xam nga xam ngam kel xam naa kel waaw rat xam nga ko rat waaw xasum looro xasum looro ak wen wen waaw garabu ngi gis xam nga ko yooyu moom yaakaar naa kuy mbër moom da nga koy xam ndax mbër tooy mooy feebaram tooy mooy feebaram de waaw faw ngay xooj di naan faw ngay xooj di naan di baxal affaire di naan xam pour tooyeeg dog-dogeeg yëpp mën a dañ quoi. des fois tam ñu ne la na nga wutal xobu xobu xobu nga gis wala wow xas wala wow daqaar. waaw yooyu moom ko ci bagage yi du ma duñ leen ko faral de. <laughs> gars ñu koy wutloo de xam nga affaire yi moom. waaw dafa original dafa original. waaw noonu la demee nag yooyu naturel la ko te tamit xam nga gars yi kenn ku si nekk lim lay jox ak li nga koy boole. waaw moo tax ngeen xam garab yi. moo tax xam garab yi loolu la naan mbër bu màggetee mën na doon sëriñ. ndax kon xam yu la ma waxoon Papa Ndiaye rek Talla Ndiaye yàgg maa yàgg jéem leen a xam garab yi réew mi am na solo am réew boo ci dëkkee da ngay xam garab yi réew ma ak ñuy seetaan léegi nag da ngaa lekkub avance te olof dañ ne ku tëdd lekk avance tëdd pom xam nga koo lekk avance am. waaw xam naa ki ma lekk avance am booy bawal. kuy booy bawal. ah booy bawal booy bawal rek ah mbur la ah. comme non kuy booy bawal. mbër gi moom waxatuñ ko wax danga may wax ci booy bawal lan. non moom koy mënu ma wax si moom dara. li ma te nga lekk xaalisam. waaw li ma mën a wax si moom mooy contrat mu ñu boole rek. te dañ koy bëre la 16 si ci yàlla ma duma ko daan ko indi dam liggéey jawaay. waaye yow mii loolu booy bawal ak taxentaanam mën a bëreem ak ni mu fi def ay mbër xeex ñoom duma la di la cons di la cons nga dem koy duma daan ko indi liggéey jawaay. dama ko dàq foofu. yaa ko dàq bëri. billaahi dama ko dàq bëri dama ko ëpp fit dama ko ëpp doole. lu garaaw laa lay wax nii. Marley li ngay wax nii doy na voice naa garaaw de. non lu leer laa lay wax loo xamante moom aw ma si sax ay tànku ginnaaw. ci yow la leer wala ci sénégalais yi la leer. leer na si man leer na si senegale yi nga xamante ne nii faruñu si moom faruñu si man. tey seetaan làmb. tey seetaan làmb bu dee làmb rek moo la tax a jug. bu fekkente ne xam ay qualité mbër kese. ku wax al suñu borom rek xam ne man ak moom duñ benn. ah man de waaru na kon yow yaa dàq bëri nga wax yaa ëpp doole yaa ëpp fit. duñu benn sax. loolu de xanaa mooy xanaa kon moom day ñëw pour daanu si nga bëgg a wax. waaw loolu la loolu la si am ñëw daanu si. si kàttanu suñu borom te noonu lay demee. li ngay wax ni maanaam man xaw ma dafa ma xaw a jaar foo teg lii ma waaw fi ma ko teg mooy su ma gëm-gëm maanaam ak sama sañ-sañ quoi. waaw man foofu laa ko teg te gëm naa ne ci kàttanu suñu boroom doom ci man dara. man de maa ngi la gis bi ma ñëwee ba tey ngay ñaq rek te ñun ñii moom mënuñoo fexe ba génnewu ñaq. non xaw a tàng rek. Ah, fii moom ab ab a fekk ma. mais dëkk bee tàng nag dëkk bee tàng xam nga. mais dama gis mu jóge ci defe diggante ak ama neex. kooku nga ne dama koy ñëw duma ko daan ko maa ko dool maa ko fi loolu du wax ju rëy. non du wax ju rëy xam nga lu tax. xam nga dem nañ ba xam ne ñun ñaar combat la moo tax ñu tëgguñu. waaw si yaa dégg. ma gëm ne moom sama diggante ak moom moom mënul am si man leen te du am si man dara lu leer laa lay wax diggante mook a neex ñëpp gis na ni mu demee dafa ñëw ragal combat bi ama neex dàq ko xam nga def ko li ko def lamb bi jeex dem yoonam jeex na loolu kase la du man nga koo def loolu ko ama neex def waaye lu loolu nooy bëreeg moom ah ni ma war a bëreeg moom moom xamagu ma ko de moom daa mën a cons combat de loolu du dara bañ àgg si rek te des fois ak saw dis la de noo gis noonu mu tuutee gaa yi dañ ne dafa am doole biir waaw bañ àgg si rek comme làmb ji moom taxaw na. promoteur yi ko bëggoon bari na. suñu borom dogal Assane Ndiaye tëgg ko. nañ bàyyi bu bis ba bu bis ba promoteur yi bañ a mer supporters yi bañ a mer amateurs yi bañ mer képp koo xamante ne nii ñëw nga sax dagg bii rek hmm. pour xool combat bi nii bañ a mer quoi. Hmm. Hmm. Euh, côté mobilisation combat boobu lu ci mar la di waajal ak côté ambiance. comme ni ma ko doon waajalee rek xam nga ne bu ma jugee géejawaay gi dañuy jug. su ma jugee ñi nekk sama ginnaaw ñëpp dañuy jug kon maa ngi koy waaj comme ni ma doon waajee siporteer yi sax ñoo ma gën a bëgg combat bi yàlla suñu borom bi xam na loolu. supporters la gën a bëgg. billaahi ñoo ma ko gën a bëgg fuuf ndax heure bu ma waxee ñu ne ma làmb ji suñu làmb la kon man li ma war a def mooy ñëw rayante góorgóorlu indi ndam li jox ko supporters yi loolu rek laa leneen waruma. déedéet. kon daal booy bawal ay duma yu métteeg jil bu ri nga koy dig pour le 16 nga wax de. waaw ah, noona daanu rek man kay waxuma duma yu métti waxuma lu mu doon mën a daanu rek. yow sa loxo. nañ yëkkati sama loxo rek xam nga man moom ñëwuma pour toroxal doomu aadama bi. ku bëgg a toroxal ni sax des fois yàlla wan la bopp ndax yàllaa fonk doomu aadama te bindiku. mais nag yàlla moo fonk doomu aadama a waxuma la doomu aadama yi. kon li ñu war daal mooy ñaan suñu borom ndam. ñu ñëw même bu fekkee dañ koy bumax mu daanu sax ñu bumax mu daanu te ñu bisiwaat mais dina am xeex dina am bëre Euh, léegi fi ñuy jeexale mooy ay question dama bëgg nga tontu ma ci Marley luy métier am. soudeur laay liggéey. ba tey nii. non instant bi nag arrêté naa quoi. Mm. mais qualifié nga ci suudar waaw qualifié naa parce que yàgg naa si quoi. Mm. am nga euh, jabar. non am nga gel. am naa bu ma bëgg a tax nag. ki kii ba ña feeñ nag. am naa bëgg a tax moom. kon ne da nga xam nga am naa dama leen ndax am nga gel. waaw noo xam nga tey gel dafa. waaw noo xamante ne nii xam nga donc. non xam marlek ni ki nit ki moom comme takka gooku yi da ngi génn comme ni ko nit ñi sénégalais yi waxee sa gel la rek moo gën maanaam xale booy génnal bëgg koo takk. loolu day am. am nga ko xam nga maanaam nit ñi est-ce que am nga gel. déggoo ma ne la am naa bu mu bëgg a tax koon kay. am non damaa bëgg non wax danga dama leen ndax gel laa la laaj. ndax am waaw am naa gel. <laughs> loo bëgg ci moom. soxna comme li ma la wax nii rek soxna laa bëgg de. Hmm. doy ma koy moo tax ma bëgg koo tax. loo koy wax. ah moom li ma koy wax moom xam na ko <laughs> moom maa ngi koy koy wax. <laughs> amoo loo koy wax nii nii. non non loolu moom bàyyi. maa ngi koy waxtaan ak moom mi ngi may dégg mi ngi wax ak man maa ngi koy dégg ah. yéen a ngi gisee. waaw ñii gisee ndax day ñëw fii si kër gi. ah kooku jege si na di. waaw non. boo sarax buy i dongo lay nurool moo tax ma ne la du gel parce que koo xamante nii da koo jël indi ko. Ah, sa mbokk la. non du sama mbokk nag. mais jël naa ko indi ko fii présenté ko sama yaay présenté ko waa kër gi instant bi yàlla xam na ne man moom sax pour ñu gisee problème la moom si kër gi la ñëw su ma bëggee dem seen kër dem nuyu yaayam wala papaam affaire yooyu dañuy déggante téléphone nag xam nga mais suñu gisee sax bariwul. xanaa boo bëree ba pare kon di nga ko mën a fas na. ah amin am seet am amin ah yàlla baax na de yàlla de mun na ko <laughs> waaw. dafa am lu nga xam ne dañ ko seetlu fa yii Sénégal. mooy ay tray da ngay dégg ñu naan diw rey na diw su su ci côté jigéen ñi ba am ñu ci dégg bërki démb ak yu mel noonu yow ngay porteur de voix di idole comme ni ñu koy wax loolu loo ciy wax. waaw loolu li ma si wax mooy gars yi ñu yoraat jikko yi rek xam nga li ma la wax ni xam ne boo gisee loolu lu ko waral mooy viol bi nit ñi si bari dañuy ñëw te jigéen viol ko xam nga li ma la wax nii ba pare rey ko xam nga loolu tamit neexul ci koo xam da ngay mel ni tey ñu defoon ko sama mbokk. su boobaa lu ma neex yaa ngi dégg kenn ku si nekk bu fekkente ne bëgg nga jigéen demal nga wëri ko te xam ne baxan dafa foor suñu borom moom moo sàq jaam bi kon bu ko waree rey moom na ko reyal boppam mais bu waaw mais kenn bañ a rey kenn ndax kenn bëggul ñu rey la kurul suñu borom rek ah voilà loolu la daal di wax gars yi waaw nan nan yaraat jikko yi rek te xam ne moom àdduna moom xam nga yàggul ñetti fan la mooy tey da ngay ree suba nga jooy gannaaw suba nga dëddu loolu moo fi nekk waaw kon na gars yi xam ne daal xam nga waaw ak taalibe rek moo fi am solo leneen lu dul ak taalibe moom lu waay jaay leneen lu dul ak taalibe mooy perte nga waaw. kon yàlla nañu yàlla defal ak taalibe. amiin te defal ko mboole mu jur defal ko bépp doomu aadama sax xam parce que jàmm moom si la lépp xaj kon yàlla na ñëpp am jàmm di leen ko ñaanal yéen it xam waaw di wax ne maa ngi jégalu xam nga maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax. waaw parce que tamit lii yombul daal. loolu ñun ñoo bokk wolof ne ñu bokkute dañoo raxasoo ay goj. waaw lii moom mënta ñàkk léegi nag Ecotra xam nga dañoo ànd ak Ecotra. ah ah tra muy tabax ay taleeg ay forage ak yu mel ak kii defar courant ak yooyu daf la jox pañe nag pañe ndogu bële moo la ko ëndaaleel saa yu may dem dana ma Babacar am li joxal ma ko mbër mi. indi sa jox ma ni yow jëlal sëñ bi yow mii di baram karaw gi. <laughs> Modou Ndiaye. Modou Ndiaye maanaam mooy chauffeur bi sama sama. mooy chauffeur bi moom mooy yóbbu Tivaouane Peulh may entraîné xam nga. waaw heure bu ma ndogoo nii Tivaouane Peulh la ñuy dem mu yóbbu ñu entraîné di yëg diin bu ma fa jugee ñëw mu yóbbu ma saal xam ma may rey suma bopp xam nga rek ak sama gaay yi nga xamante ni ñoom laa juddoondool yarandoog ñoom màggandoog ñoom ku su mel libe mooy sama gaayan bële na la xam nga ak baylaat kooku ñu ñett ñooñu ñoo defandoo lépp. ana Omar Mouma mi ngi fi. mu ngi ci liggéey beeg yéen. waaw mi ngi ci kawam nag mi ngi ci kawam bu baax xam moom du dégg moo tax ku mu nekkal da lay rey <laughs> mooy loolu noonu. mais moom dafa am suma seetlu si moom dafa mel ni mbiru géej waaye yëpp a koy soxla ci entraînement. parce que dafa xam dafa xam sport nag. waaw te li ko téye mooy làmmiñ bi yaa ngi dégg mais ndaanaan la boo xamante ni moom lu waaye di def si bëre moom. <laughs> boo ko fekk see xam ne xam ne gis nga ndaanaan Balla Gaye di daa mel ni fonk na ko ndax combat yu bëri yu ma gis si moom day damay gis moom moom ma ca biir waaw parce que boo xoolee Balla Gaye premier combat mi ngi ne Omar Mouma moo ma jox kele bi nii ngi dégg ndax Balla gis na ne Omar Mouma bëri nag ak ñu bëri ñoom ñaar làmb ju yàgg mu të kon moom xam na fu mu war a jaar Modou waaw looloo waral Omar ne ko bëreel lii ak lii ak lii soo ko defee mën nga si am ndam. sa relation mbëru géejawaay. ñëpp laa amal jàmm waaw même burul mbëru géejawaay sax man mbër yëpp laa amal jàmm bu fekkente ne nag yàlla dañoo dama booleeg mbër ñu war a bëre dañuy bëre bu jeexee jeex na. waaw. yëkkatil bi. nga moom mi ngi waaye Ecotra ah. ah ay bagage a ngi si moom lii moom xam naa ne moom bàyyi bu ko maire bi gisee moom ah dina kontaan xol bi dina sedd de ah, <laughs> maire yàlla na xol bi sedd rek waaye amin yaa rabbal alamin maire yëpp yàlla na seen xol yi sedd ak paa yi amuñu lu lul ñoom waaw ndax nee nañ koo fi jëndee sa ndey sa ko gën koo fi jëndee sa baay sa baay ko gën uh-huh. waaw kon nañ fonk waajur yi xam nga te xam ne ñoom lañu am amuñu keneen uh-huh. waaw man maa leen gën a bëgg di sant promoteur bi nag Assane Ndiaye di wax ne xam borom Baol production combat bu bu rëy la tëgg di wax lépp loo xamante ne nii mi ngi koy séntu si bis bi rek yàlla na ko suñu borom taxaw ba mu gis lépp loo xamante ne nii xam nga taw féex lay doon si moom mbëri tamit ñëw am si taw féex kenn ku si nekk booy ñëw nga indaaleel ko loo xamante ne nii bis bi moom dina si kontaan estar bi lañ bëgg ñu def ko gise ferme waaw loolu lañ bëgg ah man de si sama côté seede yàlla ci sama côté day ñëw de billaay wallaay waaw dama koy matale ba mu mat incha allah rabbi waaw bég naa jaajëf ngeen mar lim li mu wax ah. euh, Leewtoo la koor gi xam nga Babacar la ci micro bi ànd ak Talla ci camera bi waaye Ousmane ci montage bi waaye yàggay photo xam nga photokat bu doy war la moom yàgg mu Seex Béthio Thioune ak Modou Mané chauffeur bi ki dàq dawal waaye yàgg sa tey da doon dawal moom lu ne lay dugg moom gis nga Ecotra nag du ay caaxaan boo bëggee tabax yaa xam immeuble tali la wala courant bu ñëw sa dëkk la wala ay satadoo ki forage seeti leen pañe baa ngi nii lépp a ngi ci